وسلمك على العفاف سيدة المسلمات مريم الرسل الموقنات التي لم يؤذيها قل فيكون الاتفاق حياة للانتفاق وبيك بقى فتحات ولم يكن مصرفين لم يخرج المؤمن يدعوك حب المسلمين يا أم حب المسلمين مسحومة من تبكيها قدري لمجدك مع انفال الخليك قدسي بذكر مليك وذاك في المدركين mbokk yi seetaan télévision almouridiya asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Euh, fas yéene ànd ak yéen nag euh, ci waajtaayu màggalu Poroxaan 2023 loolu tax na nag tey jii ñu sëq ab jataay ñu fas yéene sëq ab jataay bu am solo ak Serigne Cheikhouna Bousso leen bokk ci njabootuk euh, Soxna Jaara waaye bokk ci waroom xam-xam yi nga xam ne nii seen xam-xam macha allah moom la ñu fas yéene seqal jataay bi jëmale ko lenn ci dund jikko ak jaar-jaaru Soxna Jaara Bousso kon xam naa ngir jëkkante waxtu wi dañ koy jox kàddu gi mu nuyoo kon Serigne Cheikhouna bisimilah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi imaanin wa islaamin wa ixsaanin ila yawmi ddin uh, assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Abdullahi ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokk mu baax mi nga àndal di nuyu kilifa yi nga xam ne ci ñoom ngeen bàyyi ko euh, di nuyu bépp jullit boo xam ne rek mi ngi jàkkaarloog sunu jëmm wala muy dégg sunu kàddu ak fu mu mën a nekk di am mbégte ci siq ak jataay bi ci barabu tedd bi di kër Cheikhul Xadim radiallahu taala anhu waaye war waxtaan ci tomb bu am solo muy lenn ci dund soxna jaaratullahi mariyam kon ñu ngi lay nuyu di am mbégte di ñaan sunu borom subhanahu wa taala eh, sunu jataay bi mu def ko mu nekk jataay boo xam ne jataay bu mu gërëm lay doon. jërëjëf sëriñ naa ci nuyoo yu am solo yi xam naa dañuy jëkkante ak waxtu rek sunu laaj bu njëkk dañ koy jëmale rek ci euh, soxna si mun buggoon a xam soxna jaara naka la tooge woon ci ron keppaaru waajuram wu jigéen di soxna Asta Walo Mbàkke maanaam naka la fa nekk woon. ku ko wax wax am njàngam ak ab yaram lan nga nu ciy laabire jërëjëf sëñ Abdullahi soxna jaaratullahi Mariam day jëmm ju sell joo xam ne dafa feeñ ci askan woo xam ne dañ leen a xamoon ci diine xam leen ci jaamu yàlla jàng ak jàngale dafa feeñ ci askan woowu nga xam ne bii a ba nga xam ne ca la feeñ maanaam environnement bi mu feeñ loola ca lañ nekkoon ñoom maanaam bii ab mel noonu la muy nekk bii as saaliha kon defaroo fa day yomb lool waajuram sëriñ ma bu so xawa mbaay waajuram wu jigéen di soxna astawalo Mbàkke soxna jaara nag bi mu feeñee jamono euh, li nga xam ne histoire saxal na ko bu dee soxla nañ euh, dat ba la gën a lëng la gën a lëng 1833 euh, ca Jolof ci quartier bu ñuy wax Mbusoobe waaye nag ginnaaw bi yàlla dogalee mu toll ci war a jàng euh, nga xam ne jàng mooy ànd ak yar te mooy li ëpp solo ci ab julit li ëpp solo ci ab julit mooy ñëw jàngal ko te yar ko soxna jaaratullahi mariyam dafa fekk ñi ko seq ñëpp doon ay jàngalekat waajuram bu góor di jàngale waajuram bu jigéen di jàngale ay nijaayam di jàngale mu jànge alxuraan ci waajuram bu góor woowu di sëriñ ma bu sa awa mbay kon yar ba ci keppaaru ay waajuram lañ ko yare fa lañ ko jàngale fa lañ ko yare bi mu jàngee ba mokkal alxuraan wax nañ ni bind na bind na kaamil comme niñ ko xamee bi mu noppee ci alxuraan ji e, dafa daal di tàmbalee jàng li ñu tuddee xam-xami sharia ci sëriñ tafsir Mbàkke Ndumbe mi nga xam ne mooy nijaayam bokk ak soxna Ashtawaalo lépp ci moom la jànge xam-xami sharia yooyu nga xam ne mën nañoo wax ne dana dimbale waale nit ci ab yaram lu mel ne tawxiid fiq tasawuf tafsirul quran yooyu yëpp ci moom la ko jànge muy xam-xam yoo xam ne mën mënta ñàkk ci doomu aadama surtout aqida maanaam pas-pas bu aju ci digganteem ak boromam maanaam war a fase ci digganteem ak boromam loola ci moom la ko jànge bim jàngee ba àgg ci àgguwaay boo xam ne nag loolu mag ñi daan wax naan wan na am lef wax nañ ni moom it dafa daal di tàmbali nag di jàngale loolu nag miin nañ ko ci keppaaruk daara koo xam ne dafa jàng ba mokkal jàng xam-xam léeg sax ci biir jamono bi ngay jàng xam-xam ci ngay tàmbali di jàngale alquran boo demee ba sa xam-xam it nga tàmbali di jàngale téere yi nga xam ne weesu nga leen te dégg leen ña ca toll nga di ko jàngal nga xam ne loolu daf lay dimbali bala ngaa noppee cim njàng yow daal nekk ab jàngalekat soxna jaara nag wax nañ ni moom bi mu noppee ci njàngum al njàngum xam-xam mi dafa daal di tàmbali moom it nekk ci liggéey boobu muy léggéeyu jàng ak jàngale tewu nag mu ne ci keppaaru ay waajuram muy soxna Asta Walo eh, nekk ca la nga xam ne ca loola lañ ko tàggat loola it eh, diggante booba nekkul diggante boo xam ne ndax eh, jamono bi mu ñëwee ci suñ Mamour Anta Sali booba nekkagul mag ndax même moom bi mu fi jógee sax nekkul mag ndax koo xam ne daanaka buñ dee xool dund gi fanweeri at ak ñett daanaka mooy li ci gën a not dund googu yaatuwul lool lool lool ci jamono boobu waaw jërëjëf ci tontu bu am solo boobu xam naa beneen la euh, laaj bi ñu ciy teg mooy ginnaaw yar bu am solo boobu nga xam ne nii ay waajuram yar nañ ko ko jàngal ko ci la daal di toll nag ci dugg kër ñu daal dem ci yoxoy Serigne Mame Mor Anta Sali Mbacke bu ñu bëggoon a xam naka la soxna jaara tàbbee ci yoxoy Mame Mor Anta Sali Mbacke ak naka la fa nekke woon lan nga ñuy laabire foofu. waaw loolu it bari na ay ay nettali ñu ci nettali yoo xam ne am na ci yoo xam ne mën nañ ci sukkandiku te doyloo nañ ko. mooy ak ñëwug soxna jaara ci kër sëriñ Maam Mor Anta Sali wax nañ ni soxna Anta Ndiaye Mbàkke sabab bu am doole la ci wax na ni sax moo ko sàkku loolu nag euh, leçon la ci jigéen ñi ndax nekk sa kilifa dem ba gis ne kër gi moom liggéey bi diis na te it euh, bëgg nga koo xam ne dana la jàppale ci liggéey bi nga di ko gëstul ba gis sa mbokkum bopp moo xam ne gis nga melokaan yi nekk ca moom mu doy la lool nga sàkku ci moom mu dox jéego yi tax mu ñëw ci kër gi loolu lu ama am solo la wax nañu soxna Anta Ndiaye Mbacke moo sàkku ci sëriñ Maam Mor Anta Sali mu dox jéego yooyu fekk na ak mbokk dox na seen diggante ñaar soxna Astawaalo soxna Anta Ndiaye Mbacke ak soxna Jaara ay mbokk yu jege lañ mu xam ko lool nag xam yar biñ def ci moom xam xam-xam bi nekk ci moom xam mbaax gi nekk ci moom ak sell gi nekk ci moom ak njub gi nekk ci moom waaye loolu it moom it ak mbaax la ci moom soxna Anta Njaay bim sàkkoo loolu wax nañ ni sëriñ Mamour Anta Sali daal di ci dox ay jéego yàlla daal di koy jàppandal mu dëppook xaddis ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ne ki gën a jàppandi ci yéen ab sëy mooy kiñ yaakaar ci yéen mu ëpp ci barke suñ boroom dogal mbir ma jàppandi lool kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa yi soxna jaara daal di dëppoo déggoo ak kilifa yi ña nga xam ne ñoom la sëriñ Mamoor Anta Sali yàlla dogal loolu daal di am loolu amee ñi nga xam ne ñoom la soxna jaara nekk la xam nañ sëriñ Mamoor Anta Sali moom it lii ma wax ci soxna jaara ci loolu la nekkoon jàng ak jàngale doonoon borom xam-xam bu mag doonoon jaamukatub yàlla bu sell doonoon ko amuk sàmmonte ba looloo taxoon xam jamono bu nekk ceddo yi fi daan nekk muy buuri àdduna yi doon nañ soxla xam-xamam ci mu di leen fite ak di leen gàgganti waaye daawul nangoo jaxasoo ñoom sax ci benn dëkk ngir rek sàmmonte ga looloo waral nga gis tuxu tuxoom yooyu mu daan tuxu nga xam ne dañ ko daan jël di ko yóbbu ngir muy jàngale diine ak di eh, gàggante gaggag yi waaye daawuñ ko daawul daawul daawul dëkkandoo ñoom ci benn barab moo waral fee soxna jaara nekk di poroxaan ñoom bañ fay nekk booba buur biñ nekk loolu mi ngi woon ñoora ñoora googu mu nekkoon da leen a dalal fële ca poroxaan ndax booba foofa ndox am na fa nga xam ne suñ ko soxla maanaam gis ko du jafe euh, benn ñëw ci moom du jafe euh, te it maanaam ginnaaw dëkkin yu moom bokk ñoom benn dëkk moom taamuwu ko woon loola lu am am solo la ngir lam ci doon sàmmonteel même jaxasoo gi sax am na fu muy waxee ne maslahatul ayal rek moo doon sabab loolu waaye jaxasoo gi sax day mel ne boo dee xool ci irwa unadim bu Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana am na foofa sëriñ bi di junjee lu mel noonu ci fu ko fu sëriñ bi daan waqanteeg moom ci ay rasail yu mu ko daan yónnee waaye moo xamal ko ne maslahatul ayal rek moo waral jaxasoo gi maanaam njaboot geek euh, nu mu leen saytoo sàmma leen seen diine soxna jaaratullahi nag daal di tàbbi ci loxoy jëmm ju sell jooju wax nañ ne bi mu ci tàbbee nag moom soxna si euh, doon nañ ko laabiire di ko dénk niñ ko baaxee defee ab jullit ci leeral ko ki nga xam ne ci moom la jëm melokaan yi nekk ci moom muy sëriñ Mamour Anta Sali mu am dogg ak pas-pas goo xam ne euh, yañ wax ne moom la jëfandikoo daal mooy delluwaat na ci alquran tànnaloo boroomam subhaanahu wa taala euh, mu wan ko fi mu jëm lam fa bëgg naka la ko mën a amee waaye sunu borom lam ko wan moom soxna si nam gisee mooy daal xam naa ni eh, suñ borom xam wax na ni ab yonent moom dootul ñëw ginnaaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye bu dutoon ak loolu daal danaa fi liggéey liggéey boo xam ne sama borom dana ma fi jox ab yonent loolu nag pas-pas la ak engagement boo xam ne fa nga jëm àggagoo fa nga mën a dogu ne lépp lum laaj ci topp lépp lum laaj ci wommatu lépp lum laaj ci tënku ci ndigal lépp lum laaj ci bàyyi ay tere danaa ko def ba sunu borom dana ma may barke bu toll ne bu fi amee doom mu doon ab yonent loolu engagement la waaye nag mu ne ginnaaw suñu borom wax na loolu dana fi ñaan suñu borom ci wax yi ni yenn nettali yi danaa fi liggéey loo xam ne suñu borom dana ma may jëmm joo xam ne wala njaboot goo xam ne danañu doon asamaan akub jant wala dana doon asamaan bari na ay ay ay waaye lu mën a xew rek maanaam engagement bi mu amoon daal ba ne bu fekkonte ne suñu borom waxut loolu dinaa fi indi ab yonent teewul indi na fi loo xam ne Eh, na ko sun borom melal jamono jépp gis nañ ko adduna bépp gis nañ ko mu cheikhul xadim radiallahu anhu loolu nag bi mu ko bi mu ko waxee it bi mu ko waxee moom soxna jaara bi mu jëlee engagement boobu ba ñëw kër sëriñ ma Anta Sali ña nga xam na nag dañoo fekkee dund googee doonoon ay donga am ci ñoo xam ne soxna si moo doonoon si ndeyi daara ñu bind ci soxna si lañ seere ci moom mooy loolee engagement boobee mu jëloon bi mu dikkee da ko remplir da koo jëfe diggam ak sëriñ bi jëfe ko diggam ak njabootu sëriñ bi maanaam soxna yi fi fekk jëfe ko diggam ak dongay sëriñ bi diggam ak sëriñ Maamor Anta Sall lépp a mat lépp mat samaan wa taa diglu digal rek dal di cay nekk su ko teree mu bàyyi amul dara lu muy xëccoog moom amul genn bëgg muy bëgg gu dul bëggu sëriñ Maamor Anta Sall loolu moom cala nekkoon téere saxal nañ ko digganteem ak njaboot gi nga xam ne mooy soxna yi mu fekkoon muy soxna Anta Ndiaye ak ñam fa bokkaloon nekk ñooña it def leen a jàppe woon comme ñu mu bokkal ndey ak amul benn bët bu mu leen naan xool rafet ñoom njort lool def leen ni boppam seeni njaboot gënal ko sax njabootu boppam donga ya fa nekkoon it kasalik donga ya fa nekkoon xàmmeewu leen ak doomi boppam nga xam ne moom nekk na fa nekkin woo xam ne eh, lii ko suñ borom defal ci ak njabootam liggéey na nag loo xam ne donte kii maanaam kii maanaam sun sun coobare yàlla tàbbi na ci waaye nag liggéey na liggéey na kër sëriñ Mamour Anta Sali liggéey boo xam ne ci diggam ak sëriñ Mamour Anta Sali ci diggam ak soxna ya ci diggam ak donga ya loo xam ne lu ne mënoon na ko faa fekk ci lu baax loolu sëñ sëñ sëñ Masamb Mariama mi nga xam ne ca donga yi la bokkoon te wax nañ ni soxna jaara nday daaraam la woon moom bi muy taalif di bind ci soxna jaara leeral na ci lu baree bari kon aw nekk yi ma aw la ko indi woon kër sëriñ Mamour Anta Sali soxna Anta Ndiaye sabab la ca waaye ba mu ñëwee it nekkin moom fa nekk moom euh, ak lu man a xew nekkin la woo xam ne ñëpp xam nañu nekkiin wii moom mooy nekkin wi nga xam ne moom la lislaam bëgg nit nekkee ak borom këram ci digganteem ak moom digganteem ak bokkam digganteem ak soxnaam digganteem ak ay doomam digganteem ak njaboot gi nga xam ne yàlla jox na ko ko kon soxna jaara noonu la nekkee la kër sëñ Maam Ranta Sali gannaaw liggéey bu am solo bu nga xam ne nii soxna jaara def na ko kër Maam Anta Sali Mbàkke buñ bëggoon a xam nag soxna jaara wala nu bëggoon a wax soxna jaara lan ban wàccuwaay la am ci yoonu murit boo ko doon représenté wala nga koy classé ci biir yoonu murit ban classement wala ban wàccuwaay la am ci biir yoonu murit waaw soxna jaara euh, wàccuwaay bu mag la am ci yoonu murit ndax euh, liggéey bu mag bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa liggéey na ko soxna jaara da cee am wàll wàll wi mooy sëriñ bi ci njëlbeenam soxna jaara daana waxtaan ak moom di ko irshaad ak di ko xeemeem la doxiinu gaa yu baax ya kon mën nañoo wax ne yitte ju kawe ji nga xam ne moom la njëkk a xam sëriñ bi amee ko ci digganteem ak boroomam ci kàddu soxna jaare la bàyyi ko te mooy loolu Cheikh Mahamadul Bachir di nettali ci minanul baaxil xadim noonu mu daan waxtaanee ku njabootam naan leen min da bi saalihina xiyaamul lay la bokk na ci baaxu euh, gaañu baax ñi xiyaamul lay la wax na ni booba sëriñ bi Euh, tàmbuleegul jàng waaye ba mu ko déggee ci soxna jaara la noppee tëdd ci lal di nelaw nga xam ne fu guddi jote rek mu fab euh, moo dem ca ba nit ñi tëdd mu dem ci jullikaay ba taxaw fa nekk fa ba asamaan set ngir bëgg a bokk ci saalihuna yooyu nga xam ne moom la leen soxna si wax ne bokk na ci seen baax qiyaamul layl kon loolu dañuy wax ne soxna si moo ko motivé ci yitte ju kawe jooju kon yitte ju kawe jooju nag moo continue nag di ñor di ñor di wéy di màgg di màgg di màgg ba liggéey bi agsi fii mu agsi kon am na wàccuwaay bu baax ci sëriñ bi waaye am na wàccuwaay bu baax ci yoonu murit ci biir loolu it e, sëriñ bi nettali na boppam mag ñi nettali nañ nettali yoo xam ne wax nañ sëriñ bee leen ko nettali soxna jaaratullahi mariam e, ginnaaw bi nga xamee ne sëriñ baa ngi ci liggéeyam bu màgg bi e, loolu nag xam naa mbirum biir la waaye nun luñ gëm la am na ay barab yoo xam ne sëriñ bi daana fa toll muy tolluwaay yu metti yu tiis yoo xam ne daanaka tolluwaay la yoo xam ne mën nañoo wax ne tolluwaay yu nit mën a découragé la bu fekkonte ne dañ ko jàppe nit rek waaye barab yu mel noonu saa bu fa tollee ñaare dana dégg soxna si léeg-léeg sax mu xam ne soxna si moo koy génn ci xat boobu loolu nag am na fa ko sëriñ Abdul Ahad nettale yaakaar naa yéen am ngeen archive yi boo ka yeer moom moo ñu ko dogaloon tam naan jëmmu rek moo sëq ci ay mbaggam ne ko génnal dem ci sab liggéey mu geestu seen muy soxna bu sa ndeyam kon day mel ne kon soxna si moo ko génne woon ci xat-xat boobu waaye teewut biñ ko bi mu nekkee ci guddi ndakaaroom yooyu te sëñ mu Ka di ko nettali nga xam ne néeg boobee nee na ku ne fekk na ko fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam eh, ak yam ko doon fàttali di ko dëfale waaye nee na nee na keroog gis na fa sunu maam jaara mu di ko ñaax te di ko dolli ay daara kon soxna si eh, daana daana daana daana daana dikkalaat sëriñ bi ci ay diggante yoo xam ne ngir defal ko ak ay diggante yoo xam ne ngir génn ko ci xat yooyu mu nekk ngeen mën a wéy ci ab liggéeyam wax nañ ni daana wax ne keroog ba nga feeñee la nga jaayante woon nag sa borom na nga xam ne mbir mu màgg la moo xam ne kenn mënu caa jote du jànkonte ki coono kon yii ngay daj nag moom bu mu tax nga yuqat loolu daana ko ci ñaax euh, kon wàccuwaay bi mu am ci yoonu murit wàccuwaay bu mag la ndax liggéey bi moom euh, sëriñ bi moo ko liggéey waaye nag euh, am na ñu ci laal ñu baree bari ñoo xam ne jàppale nañ ci sëriñ bi daa am loo ne sëriñ bi rek moo ko defal boppam kenn dimbaliw ko ci waaye liggéey bi moom fii mu agsi moom daam ñu ci jàpp ba mu agsi fii mu agsi soxna jaara nag kenn jiitu ko moo ci jiitu mbooleem ñi àndoon ak sëriñ bi kenn ku nekk fa la sëriñ bi tegoon ak lam la doon defloo bi mu nekkee ci tukki bi dañ ko téyel njaboot gi téyel ko yoon wi téyel ko liggéey bi di ko doxal ba mu mel ni mu ko bëggee ba mu dellu siwaat fekk ko fi kon ñooñee moom dara lañ ci ñooñee tàmbalee ci maam Thierno Ibra Fatek ñoom suñ Mbàkke bu soog suñ Daam Abdourahman Loog suñ Mandum Mbéeg suñ maam Cheikh Ibrahima Fall ak mbooleem ña nga xam ne jamono boobee ñi ngi fi woon te seriñ bi joxoon leen digal teg leen ci ay barab ñuy liggéey ñee di bay di indil njaboot gi ñuy dund ñee di jàngale ñee di xam-xam ñee yor uh, daara yi ñooñee ñoo téyel sëriñ bi liggéey bi moom mu dem ci tukki ba ba ñëw fekkaat ko fi ñooñee buñ tisaaroo woon kon du fekkaat njaboot gi waaye ñoo ko téye ba mu agsi kon toujours rek nañuy bàyyi xam ne ñooñu moom dara lañ ci yoon wi def nañ fi dara it nag def nañ fi dara loolu faaw ñu di leen ko sante di di di ko fàttali ko ci ñoom ak di ñaan suñu borom mu fayal ñu leen gën ci pay soxna jaare mii nag moo jiitu ci liggéey boobee ndax moom euh, suñu borom da ko teel a xamal lim indi maanaam ki mu yor sunu borom da koo teel a xamal mu teel koo nongul euh, teel koo nëbbal nag ay secret nga xam ne dawu ko feeñal dawut feeñal benn secret ci sëriñ bi nga xam ne ne kat lii feeñ ci moom wuute naag lañ mi noonu mu daan feeñ ci ndaw ñi ci zaahir kon am na lu suñ borom denc ci moom sëriñ bi it xam loolu loolu dox seen diggante ñoom ñaar mu nekk jëflante boo xam ne noonu la wéyee ba moom ni mu mujjee boromam sëriñ bi continué ab liggéeyam waaye teewul soxna si nag di ko di ko di ko sëriñ bi di ko gisaat ci yeneen jamono yoo xam ne kon buñ ne yoonu murid wan waaye la ci am mooy ci ñi ko fonde la bokk ci ñi taxawu sëriñ bi ba yëf yi ci la bokk ci ñi ko doon motiver ba yitte yu kawe yi sëriñ bi am soxna jaare ci la bokk moo la bëtug nag doon koo xam ne mooy jenn nday ji nga xam ne ah, yoonu murid wépp war nañ ko teg seen kanam def ko muy nday ñu di ko roy ci nekkiinu nday waaye def ko muy euh, soxna ñu di ko roy ci nekkiinu soxna ndax ñaar yëpp lu ci nekk da cey jox ay exemple nam nekke woon ak sëriñ Maam Mor Anta Sali bépp murid bépp soxna war nga mën a jéem a jàngat loolu jël loolu xam ne lii moo lay jëriñ ci seen néegub sëy lu dul loolu du la amal benn njëriñ waaye bépp soxna war ngaa mën a jël nam nekkee woon foofa ak njaboot ga xam ne lii moo lay jaral moo lay jariñ ci sa digganteeg sa njaboot ni nga leen di yore waaye lu dul loolu du amal benn njariñ kon moom lim doon ci yoonu murit mën na maa wax ne buñ ko bëggee buñ ko buñ bëggee wax ne lii la ci loola dañ koy tuutal ndax moom mooy lépp <laughs> waaw kon soxna Jaara mooy lépp yoonu murit dal ci gàttal. <laughs> Euh, jërëjëf sëñ Cheikhouna ci euh, leeral yu am solo yi xam naa ngir jeexal rek ñu ngi dëgmal bisam bu tedd foofee ca pour Poroxaan poroxaan nag jamono yi mbooleem jullit yi rawatina murit yi seen xel jëm fa ngir ñu dem barkeelu ci euh, barkep soxna su tedd soos boo doon laabire ak dénk ak joxe benn yóbbal jëmale ci màggal gi lan nga ñuy baaxee waaw ñu ngi waajal bis boo xam ne dañ ko ciy fàttaliku di ko ci ñaanal loolu it bis la boo xam ne yàgg na lool di ñaan suñu borom àgg lañu ca te àgg la ca bépp jullit te yëngu ya ak lañ fay def lépp rek sunu borom nangu ko defal ñu ko ci suñ balaas yiw xanaa di wax ne fàttaliku nituk yàlla ak ñaanal ko am na ay melokaan yoo xam ne ci lañ ko gën a taamoo euh, loolu dañuy delloowaat ci ni ñuy fàttali ko Cheikhul Khadim ak niñ koy ñaanale ci bis bi nga xam ne dañu ko santoon nag dañoo santoon ñu di ko ci santale boroomam waaye ñun ñu di ko ci fàttaliku waale cant googee nga xam ne daal moom la ñuy sant borom bi subhanahu wa taala di ko santalee sëriñ bi mooy fexe ba maanaam ibaadaat yi bari fa lool fexe ba lépp loo xam ne munkar la bañ faa am mooy demee fa pas-pas bu sell ak yéene ju sell ci fas fa yéene jaamu yàlla euh, ci xeeti jaamu yàlla yi suñu borom gërëm yépp nag jàng alquran euh, sikkar istixfar salaatu ala nabi jàng xaso yi di nga xam ne cheikhul xadim moo ko taalif euh, yooyu yëpp xeeti xeeti xeeti jëf la yoo xam ne mën nañ koy jëf ci bis bu mel noonu togg ay bernde fexe ba bernde nit ñi amee melokaan yu yiw yoo xam ne dana wuteeg melokaan yu lislaam ñaawlu te lépp loo xam ne euh, lu fa nit daan def la ci luñ jàpp ne da caa bokk te bokku ca loo xam ne ay folklore la rek ak loo xam ne daanaka kenn xamul lu mu doon nga xam ne jaamu xërëm sax la gën a nuru yooyu ñu di ko wattandiku ne ci dàgga yi di xalangook daggi xobi garab ak yooyu yëpp ñu xam ne yooyu moom du dara du amul solo la am solo daal mooy ña fay dem buñ àggee nañ dem ci soxna sa ca roodatu ba ñaan fa ñaanal ko ñaan fa yàlla ndax barab buñ yaakaar suñu borom nangu fa ñaan la su ko defee nag fu waay mën a nekkit lu mu man ci berne mu def ko lum mu man ci lu baax mu def ko su waxtu delloo mu jotee mu dellu te lépp luy ab safaat mu di ko moytundi ko kem kàttanam noonu rek la ñuy fàttalikoo nitu yàlla waaye leneen lu dul loolu ñu dug yàlla moom saa buñ jugee jëm ci moom lépp luñ ca boole loo xam ne lislaam daf koy seppi sànni wala lislaam daf koy ñaawlu ku ko fa yóbbu bokku ca ku ko fa fekkit bokku ca la ca bokk daal mooy la lislaam di rafetlu ndax moom lam nekkoon lam nekkoon mooy lislaam ju sell joo xam dara kooju ca tawxiid wéetal yàlla di jaamu yàlla boole ko nag ka ko yàlla booleel muy jaamu yàlla ci moom te moom mooy jëfe ndigalam di bàyyi ay tereem ngir am ngërëmam ndax ngërëmam suñu borom da koo lëkkale ngërëmul yàlla ginnaaw bu jaamu yàlla jàllee loolu nag moom réussir na ko kon nag buñ xajamal dara ginnaawam ci buñ ko dee fàttaliku ndax lu fa nit def ci ab safaanit moom dara du ko ci engagé yow ma nga xam ne yaa koy def yow lay engagé lu ci nit def ci ab yool nag te yéene ko ko suñu borom jotale ko ci jotale la ci yow it nag kon nañ góorgóorlu baax a baax ci demin wi euh, bañ a yàkkamti euh, loolu alxuraan di wax naan ñi nga xam ne dañuy dem makk daal loolu mu leen di aaye fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fil xajj màggali poroxantug aj waxuma ne ak aj la waaye damaa wax ne yooyu ñuy aaye nga xam ne yooyu moom ku jëm fu sell foofee dañ la koy aaye ku jëm fu mel ne poroxaan it bay ba nga wattandik ko ta xam ne barab bu sell la boo xam ne yooyu amu fa place daal kon sëñ Cheikhouna jërëjëf xam naa dañ lay jox rek euh, kàddu gu mujj gi nga daal di tàggoog mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ni ñoo ngi doon bàyyi xel jataay bu am solo bi ci Al Mouridiyyah TV laahi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant kilifa gi nga àndal moo tudd Serigne Saliou Ndiaye di jotle ab nuyoo Serigne Youssou ak mbooleem membre Hizbut Tarqiyyah yëpp rek di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom dolli ko ak wér gën ko kàttanal ba yéene yu sell ak naal yi nga xam ne am na ko rek ci lislaam te jaare ko ci tool bi nga xam ne mooy tool Cheikhul Khadim bi sunu borom defal ko ci lu kawe njortam di siyaare bokki jullit yëpp rek di ñaan bis bi ñu àgg ci ak jàmm te sun borom nangu lépp te mu bañ am benn jafe-jafe te mu sedd guyu nag euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf Serigne Cheikhouna ñu ngi sant ak gërëm mboolem mbokk yi nga xam ne ni ñu ngi doon ànd ak ñun waaye di la jaajëfal ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne ni ñu ngi ko jagleel waajtaayu màggal Poroxaan jëmale woon ko ci euh, soxna Jaara Buso waaye di la jaajëfal itam ci nungul gi nga ko nungul ci jamono yi nga xam ne ni yéen a ngi ci xat-xat yi yéen Mboussobé nekk ci waajtaayu màggal gi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la sant di la gërëm di ñaan day ci angërëmal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërë ngeen jëf مريم الرسل موقنا التي لم يبدل قل فيكون الاتفاق حياة للانتفاق وبجواه فتحات ولم يكن مصرفين لم يخرج المؤمنين ترك حب المسلمين يا أم خير المسلمين مصومة من تبكيها قدري لمدينتي مع انفال الفلوكين